Euh, jërëjëf sëñ maam Thierno ndeysaan macha allah dangaa baax waaye wax naa ko ba tàyyi euh, nee naa actualité man duma ci wax sama xalaat waaye dama ciy wax liñ ci suñu borom xamal ndax xalaat euh, dafay tuxu te foo ko waxee ñu weddi la donte li la yàlla xamal sax boo ko waxee ñu weddi la waaye wax li la yàlla xamal moo gën a wóor lépp bu ko defee jërëjëf sëñ maam Thierno macha allah laaj bi am na solo lool xam naa bu dee yenn actualité yi nga xam ne jaar na fi moom yu si bëri dama koy leb rek ndax xam naa bu ma ci duggee dafay yàggal jotaay bi te yenn yi ñim dal seen kaw daanaka toog di ci débat sax yàqi wax la ndax matu ko ndax kilifa yu bëri daanaka lañ ci war a wax yépp wax nañ ko kon ñoom loolu euh, du jar ñu ci yàddu waaye ndeysaan macha allah jërëjëf suñ maam Thierno réew mi maam Thierno nañ ko sànq wallaahi nañ ko sànq euh, maam Thierno balu fetal bii may gis bu tàkkee fii ci dakaar du baax wallaahi bu tàkkee fii ci dakaar du baax te gis naa ko nag balu fetal dana tàkk fii ci Dakar buñ ci defut ñaan wallaahi maam Thierno nañ ci def ñaan xam naa nag maa ngi maytuloo maam Thierno maa ngi moytuloo Ousmane Sonko na jël matuwaay bu baax ci boppam. ndax na xam na réew mi dañu am ci moom yaakaar Barthélémy jaas na def jël ay matuwaay baax ci boppam waaye wallaahi lii maam Cerno ñun ñoo ko gis wallaahi alxazim yàlla ngi may dégg bi ma xamee lii ak léegi lum néew néew mat na 15 jours wala mu ëpp ko mbalu fetal bii bu tàkkee ci réew mi du baax de ci kaw nag ñu def ci ñaan yañ ci war billahi alazim ndax maam Thierno joxe woon naa saraxi réew mi defaguñ ko de ndax bu ñu ko defee rek ma yëg ko defaguñ ko de soyaatiini nag waxoon naa ci sarax boobu seen sarax la waaye saraxu réew mi la waxoon naa ko de waaw soyaatiin maam Thierno soyaatiin du caaga ne mooy yi ne ci àll bi yor ak caay-caay gu ñuy loree doomu adama kepp soyaatiin dana doon doomu aadama ni ñun yor tànk me loxoom nekk ci biir nit ñi waxoon naa nañ ci génn sarax ñetti mbaam bu xonq bu ñuul kukk bu weex tàll waxoon naa nañ ci génn sarax ñetti nag bu xonq cur bu weex tàll bu ñuul kukk ñu yóbbu ko ba ca foore ba ñu bàyyi leen ñu dem bu ñu ko deful maam ceen réew mi fii fam jëm baaxut de waaye xam nga asaraat da cee bëri ñu fi nekk ñu ci nekk te amuñu kilifa ñun nag yàlla dañoo nattoo ñu am kilifa te suñu kilifa day topp suñuy émission ba tax na am na yenn yoo xam ne buñ ci duggee rek tey tey ba moytu dana ma woo ba ñëw Abdou Xaadir ma ne ko ah, mënuma ñaan mi bu ma la si gisati te bu boobaa doomu aadama yi nañu yàqule ndax ñi yaakaar bari nañu lool waaye maam Thierno balu fetal bii nañ ci taxaw nañu bàyyi réew mi ñuy foowee te taxaw ci réew mi falaa ci yem beneen bi ci des maam Usman Ousmane Sonko ba japp na mbiram da soti ba nopi damay bañ mu japp na jël na réew mi ba nopi ba yakarul lolu wallahi lasim ku ko wax da nax des na de na taxaw ci bopam waxon na sarax yi nga xamne bu koy def di jël réew mi su ko jëlul réew mi man Abdou Khadi dina dag sama kurus 104 jeun 104 picc 104 kayitu marab yi bu ko Ousmane Sonko génnee bu ko neexee jërul muy def ben campagne. 104 jeul 104 picc. 104 marab 104 kayitu marab waaw bu ko génnee bu ko neexee mu teud bir néegam nelaw xana kay bu boba likoy koy moy Moussa mu sàmm bi bu ngi ko fooyee de. Ousmane Sonko rek moko ko mën mbokkam mu mu dégg ko defal. te yéene ko ko incha allah bu ko neexee man Abdou Khadir maa ko wax jëru muy campagne na tëdd biir néegam nelaw te sàmm bakkanam rek. ne dégg na lii mën ko defal. bu ko deful nag maam Thierno. wallaahi gis naa ku ñàkk solo yor réew mi. Hmm. moom mii bu taxawut ci boppam ba yor réew mi Ousmane Sonko bu ko yorut ku ñàkk solo moo ko yor. ku ku kenn foogul. 2024 kon nag maam Thierno dugal ma ci biir émission bi. gannaaw actualité yi dañuy daal di ñëw ci yi ci table bi noonu ñu njëkk ko ci pot bële diiru sunguf pot boobu lan la suñu doxaate secret wu euh, wala sax balaa ñuy dem ci pot bi secret kànnaar bi kànnaar bi ci boppam mooy jaar bii te jëkkati ji ndeysaan jërëjëf suñ maam Thierno bala ma cee wax li ma njëkk a wax mooy ku aajoom na faju yàlla boo ñu woo boo seetaanee suñu émission yàlla nañ la soof boo ñu xoolee yàlla nag ñu jep kep ku aajoom na tu faj yàlla bu ma la xam yalla nga setan suñu émission rek da ci tayal bul ma wo bu la yalla dimbalé ba nga jot ma it te yàlla nërta faj ci aajo yalla buñ ma ak yow ndax maam na xojuma ci ay tapalé sëriñ ci lu ëpp ci ñom ay tapalé kep lañ fi nekké amna ben mara bo xamné ne mi ngi ci réew mi lima ci gëna metti néna ab cheikh la man maa ko jàpp waaye maam Thierno nañu bàyyi tappale yi maara bi dama ko ndax maa ngi bàyyiloo xel mboolem sëriñ si maa ngi seen kaw dama leen bàyyi xel képp ku fi toog ci internet wax ne man nga dara man Abdou Khadir ba ma saytu la loolu mënoo ko du baax ci yow kooku nag dama ko dégg maam ndomba bu mu présenté woon ne man na ko ba noppi am benn koo xam ne seen mbokk yi la bokk yéen mu may ko valeur boo xam ne ay millions lay jar moo ko wax de te fi mu ne nii may waxee ak yow falaa yem ndax damaa bëgg sutura moo tax ndax moom wax naa moom ci suba nee naa ko lii nag boo ko tegul ci suuf su ma ñëwaatee dinaa jaar ci sa ba noppi siiwal la te daa am noo xam ne su ma ko junjee ba ëpp rek nit ñi danañ ko xam te wax naa ak moom nag ci ay kàddu ba yaakaar naa dana dégg li ma ko wax waaye nañu bàyyi tappale ak caaxaani tey wax nit ñi dëgg. Eh, ba ma keroog bi ma ko déggee mu wax ci ndomba gi ma jël ko ne ko ma sàngam de daa mel ni da wax ne man nga ko mu ne ma waaw ma ne ko ñaata mu ne ma temps ma jël genn wàll gi jox ko ko. jàpp naa ci sëriñ su bari ndax man loolu laa fi nekkee nag képp ku fi toog ne man nga dara ba ma saytu la munoo ko si suuf nga jëm danoo lay duma ba ngay bëgg a dee te du ma jóg fi ma toog wala ma wàcce la nga jaaree fa say mbir daanu nga fay. ndax mécc mi nag maam Thierno foofu lay bëgg a dañoo toll foo xam ne faa ñuy jëflanteeg ñi bëgg yàq mécc mi anam ñaata maaraw yoo fi xamoon ñu doon yëngu ci ñaan te siiwoon lool te daanu alalu doomu aadama yi képp ku koy lekk te teg ko ci sa bakkan tegoo ko ci leer wallaahi alxasim bu la yàlla tàccoo it ab diir bu néew ci suuf nga jëm nañuy jëflanteeg doomu aadama yi ci dëgg te bàyyi tappale yeeg caaxaan yi nag mu gën a lekk sama émission maam Thierno loo doon laaj léegi kànnaar bi lan mooy secret bi juróom gëstoo fu wóor jëlee fa lu wóor ñëw toog fu wóor du dox doxin wóor di ko joxeen wóor juróom yi mooy secret bi ci li muy dox nag maam Thierno kànnaar ba bu njëkk dama doon def ku am soxna sooy bëgganteel boo ñëwee ñu liggéey ci waaye loolu dépassé naa ko léegi defatuma ko ku amut soxna duma la ko liggéeyal diggante jëkkër ak jabar ci laa koy liggéey waaye képp déedéet noppi naa ko liggéeyal salbateer ndax dama cee gis lu bari lu mu yàq waaye képp koo xam ne sa jëkkër daf laa wan ginnaaw wala sax jabar ji yow la wan ginnaaw te jëkkër ji bëgg mu topp ko yéen ñaar kum ci doon boo ñëwee bañ def ko ci kànnaar bu la noppee buñ noppee ba jox la ko kànnaar bi yaay choisir bu la sànni géej bu la neexee sànni ci teen bu la neexee sànni ci dex bu la neexee denc denc ndax boko sané ci téne bis man na ñew nga bëgg takaliko ak mom té bu boba yaakaar na saya wa kay sëñ bi Mbàkke xamna ma ngi ci biir émission danga may may tout rek ma ngi jéggalu bu wér inshallah allah waaw bu ko défé kuñu ko liggéeyal ki bëgg koku top ko dana ko top ni xarmu mu miina borom di topé borom inshallah kon lolu moy kanar bi. code nga seen ndeysaan jërëjëf mm, sëñ maam Thierno xam naa li na ci biir moom dana naqaree wax nii moom hmm. waaw dana naqaree wax waaye bu dee njariñ li kii yaakaar naa mbokk yu bari xàmmee nañu ko bu baax a baax bu dee pot bi nga xam ne moo am kubéer bu xonq bi moom dafay dox ci wàllu koo xam ne dafa yor place te bëgg nit ñi di ñëw wala moo xam bitig la wala mu ne ci kër te bëgg di am ay client da ngay xëy di ko suuroo képp client yi dana ñëw ba nga jaaxle incha allah bala nga xey rek talal rek mu saxaar ci biir fi nga bëgg nit ñi ñëw fa inshallah allah man Abdou khad ma ko wax ci place bi bu fekke pot bi la seigne maam tiano yakana wa bitim rew xamé nañ ko xamna <laughs> ndax moy pot la bo xamné xam nga maam tiano lu bari ci mbokk yi nek bitim rew tak. ndom ma dalena te duñ tak waye ki kep ko xamné am nga ko jëlun ngay takk ndom ndax boko dee di suuroo bu la nexé da ngay am bu la naqaree da ngay am saytaane du la jege fen te ku la gis dana la sopp bis bi nga ko suuroo bu jeexee nak man Abdou Khadir garanté tuma ko jamono bi nga koy suuro la wax <laughs> ma sha allah. ah jere jep kon seigne Abdou Khadir loolu daal di nay leer kon ñi nekk bitum rew daal di jokkoo ak sëñ Abdou Khadir ñu yone len ci garab gu am solo gi nga xamantene amul tak amu dara da ngay suuro rek daal di dem solo bu ci jógee amna na bu may seen non ci table bi ndomba non moy mooy gan ndomba ci ndombay Euh, jërëjëf sëñ maam Thierno macha allah ndomb gi moom yaakaar naa mooy bëri nañu ko xàmmee loolu yaakaar naa waaw ah, de mosu fee jaar nag ci pet laa ko doon joxe <laughs> waaw dafay bari ci liggéey yoo xam ne sëñ maam Thierno damay sës sax moo tax ma génn ko waaye musu fee jaar moom kii mosuma cee def émission euh, mas naa def émission nag bu nurook moom waaye boobu bokkuñ ndax boo xoolee bii dafa am ay bootal waaye ndomb la goo xam ne moom képp koo xam ne am nga ko noppi ngaa sonn ci ci àdduna nit noppi na laa liggéey ba jàpp la danga bari mbooloo ku la gis dana la sopp aw fan danga ko gudd la lool waaw danga dem ba jaaxal say mbokk ñaan waa moom fanamu gudd yi moom xanaa ñaanu mag la da ngay am bayra lool danga mucc ci ay woo xam ne fekkee nga ko ak woo fekkewul ku ma ko jox nag maam Thierno laajut ngay sukkati sa giiru dund ci benn sëriñ te ku ma ko jox loola dal kaay wax ma ko man Abdou Khadir ma faj ko maa garante sa giir dund loola dal ñëwal ma faj ko incha allah bu dee problème mu ñàkk sax yow dootoo fay boo ñëwee ma faj ko incha allah kon xam naa ñu jox leen